bisu màggal bii ñu bisu màggal bii ñu màggal mais bis boobu bi mu fa jógee moo waxoon ne bu dikkatee nañ ko def ni tabaski to waaye nañ ko màggal bu baax a baax a baax rek ndax bu fekkoon bu fekkoon bis mu amuloon ba ma def ma def dem boobu ma dem kon sa sa mbir yëpp suna yàqu yéen ñi nga xam ne yéen maa yaakaar du ngeen am du ngeen am du ngeen bëgg seen bisam mu noonu nag jëkk nag loolu mu wax fekk na yoon wu nekk ak diine ji nekk bu fekkee ji ko mat la am na bis